waaw tey dañ fi daje woon euh, ak euh, bénéficiaire projet IMAM 2 muy projet autosuffisance en mouton bi nga xamante ne Heifer International bi ngi ko am ak euh, waa association des maires du Sénégal ak le ministère de l'élevage et des de la production animale ñu placé ay junni junni xar yu jigéen ak ay xar yu góor ci communes yu Thiès yi mais mën naa ne ci fukki région ci Sénégal mais bi ñuy def placement boobu ñu nekk demoon ci ak collaboration ak waa compagnie d'assurance agricole bépp xar bu ñu placé ñu assuré ko takkal leen ay jaaro yi nga xamante ni bis bu yàlla defee safaan nga xamante ni ki amoon xar bi dinañ ko mën a rembourser à de quatre-vingt pour cent donc tey ñu ji ñu boole woon euh, bénéficiaires yi nekk dans la région de Thiès ñu jógee Taïba Ndiaye ñu jógee Ndiayène Sirakh ñu leen doon jox seen i chèque seen i bi nga xamante ni tey bu ñu fi jógee mën nañoo dem euh, récupérer ko ngir mën a remplacer xar yooyu nga xamante ne joxoon nañ leen ko ta yalla def muy safane ci des mortalités té projet bi am un système de suivi mais naturellement projet élevage bu nek chaque année dina am ay sujets yoo xam ne dañuy dañuy faatu ci fièvre ci accident ci leneen mais loolu ci am solo moy sa yu euh, xarmé mi deewee assurance dina ñëw rembourser ko té loolu moom sécuriser le bétail moy sécuriser élevage et puis mooy tax aussi objectif bi ñi am nga moy am autosuffisance en mouton fii ak at donc yàlla mënuñu cee jàppale ba xar mu dee ñu mën ko remplacer chaine de solidarité bi mën a continuer autosuffisance euh, impact bi mu mën a indi mooy bu fekkee ni xar mu dee ñu remplacer ko dinañu mën a tax ñu attendre suñu objectif ndaxte suñu objectif mooy liggéey ak les commune ci ñaar téeméer wala juróomi téeméeri communes yi nga xam ne ñoom ñoo adhéré ci projet bi ngir que Sénégal bu ñu demee ba tabaski soxlaat soxlaati di importer xar yu jógee Mali wala Mauritanie donc mais ki ci loolu il faut ñu def ay pexe yu nga xamante ni xar saa yu deewee ñu mën koo remplacer ndax ñun approche bi ñuy développé mooy passage du don mooy jokkalante ndimbal bi njaboot bi dañuy jox ko ñaar ba ñetti xar tàggat la jàppale la ci lekk ci dund ki ci ay tàggat mais bis bu juree nga mën ko jox beneen njaboot mais bu fekkee ni loolu gunge woo ko ak assurance bis bu xar bi euh, faatoo yaakaar naa chaîne bi dafay daal di dagg donc xeex daggatu xeex euh, chaîne boobu moo tax ànd ci ak waa compagnie nationale d'assurance agricole ñu assurer bépp jur ba nga xamante ne placé nañ ko tey jii nag tey ñu ñëwoon tey doon euh, séddale chèque bi nga xamante ni tolloon na euh, toll na ci lu yées tuuti million muy euh, téeméeri junni ak fanweer ak lu teg ñu ko doon séddalee jigéen ñi nga xamante ñu ngi jógee Ndiayène Sirakh ak Taïba Ndiaye ngir bu ñu demee ñu mën a remplacer xar yooyu xamante ni faatu na ñun ñu ngi wuyoo Ibrahima Bawo Kébé di fi teewal compagnie agricole Sénégal ñëw fi ci turu suñu directeur général Mohamed Moustapha Fall donc tay li ñu fi daje moy euh, projet AIFE mi nga xamné ñom dañ am bébét def euh, li ñuy wax partage de don dañuy jël ay jur diko ko jox ay famille vulnérable di ci jeexintal bi moy ñooñu tay bis buñ paré ñu mën ko jallalé ci ñeneen donc euh, mu nekk approche bo xamné ñun dañ koy magnifier donc ci seen xalaat ñu xam li dëggal projet bi wala likoy tax mu wëy moy ñu encadrer ko ñu ne dañ ciy boole assurance agricole donc volet boobu li tax ñu dugal ko ci mooy tey jur bi ñuy jox nit ñi bis bu daanoo ñoom duñ toogaat rek ne sa ngéem duñ amaat luñ def donc tey assurance bi bu leen remboursé projet bi da la ñuy jëndalaatal jur ñu mën a wéyal li nga xam ne moom lañ tënkoon ci ci njëlbeen donc loolu moo tax euh, ñu magnifier collaboration bi ñu ñëw fi tey pour indi woon ay chèque yoo xam ne dafa am ñu amoon jur jur yi daanu ñu ñëw pour wan leen ni liñ leen ay fër waxoon dina leen gunge loolu lu amee la donc ñu ñëw joxoon leen tey seen i chèque d'indemnisation waaw loolu compagnie d'assurance yi moom defe naa ne way boobu ñun ñëpp am nañ ko donc tey ñun ci suñuy njëlbeen ci suñ sensibilisation problème bu metti la woon ci ñun ndax danga daan dem fenn pour wax leen njëriñu assurance bi ñu wax la beneen beneen assurance boo xam ne am na lu ñu jot a jànkoonteeg ñoom donc ñun nag secteur bi ñuy pénétrer secteur primaire la boo xam ne c'est très vulnérable secteur boo xam ne dañoo seen loxo jotewul seen ginnaaw donc procédure yi dañ ko gën a alléger ni ñuy doxaleek ñoom bokkul ak ni yeneen compagnie yi di doxee parce que xam nañ ne ñu ci bëri seen jàng demeewul noonu donc bu ñu ko mettilee rek day xaw a jafe donc suñ procédure yi c'est très simple par exemple ci jur gi ñu nekk nii tey boo amee jur gu daanu dañ la naan nga woo vétérinaire bi nekk ci gox ba mu ñëw def li ñuy wax constat bi donc yow sax du yow yaay def loolu yow boo woowee vétérinaire bi moom dina ñëw def ko wala boo ko jotul boo ñu woowee ñun ñu yebal ku ko def donc ñun ñooy def liggéey boobu noonu bu kay yëpp yembe ñu am délai wu fan wéru fan pour rembourser la pour nga mëna reprendre activité ci nim gëna gaawé parce que boo xoolee euh, prime yu xawa accessible par exemple ci cadre Ayfer bi ni lu yes ñent téeméer lañ lay wax nga joxé pour at ci pour pour garantir xar bi bu amé daanu daanu ñu fay la lu ëpp fukki jooni donc ay prime yu xawa yomb la accessible pour pour pour pour population. actuellement ñi ngi ci li ñi wax pic bu am importance parce que bu ñëk ñu bëri xamee wuñu woon assurance agricole mais fi mu toll nii ci jamono ci dëkk bi ñu bëri léegi ñoom ñooy demal seen bopp ci banque yi ne leen dañ bëgg assurance agricole parce que tey garantie supplémentaire la boo ko amee activité bi ngay def bu yàqoo dootoo toog ne kenn mënuma fayal wala ngay dem di xaar état yow am nga sa contrat bu la permettre ñu mën la delloo li nga xam ne defoon nga ko ca banque bi mën la lebalaat wala nga mën a fay bor ba nga fa amee jege guñ million waaye sori wuñ ko fi mu toll nii donc mën nañ téeméer yi di dem donc léegi ñu yàgg ci million incha allah waaw ñun li ñuy wax investissement bi parce que loi d'orientation agro-sylvo-pastorale moo ñu encadré bu dé ci jurgi la jurgi gi la ñuy assuré bu daano ñu delloo ko bu dé ci mbay mi la li ñuy wax charge de production investissement bi li nga def ci tol bi ba ngay commencer ba ba ngay yeggali ñun loolu la ñuy assuré donc ñun volé yooyu lañ am vocation agricole rek la ñu nguur gi dénk donc ñu ci benen volé assurance. Nakoy Ndiaye laa tudd jóge Taïba Ndiaye en tant que président groupe bah Yaay. ñun keroog bi maire woote ci kii bi ci maire bi ñu loterie yi ñun ñoo gagné Taïba Ndiaye commune bi yëpp ñun ñoo si gagné dama deele ci se woon naa ci ñu yoroon laa bokkoon waaye dafa mujj mu dee mm, feebar dafa jékki-jékki di saqat ak di wonk mm. ma woo vétérinaire bi bi ñu boolee lan booba mi ngi dem màggali ma jël ko yóbbu ko Tiwaawan si ndaw xar wala nag la ndaw faj ko ni ma delloo si waat ko ma delloosiwaat ko mais taxul mu kii ba léegi daal loolu ci la jaare mu daanu. après noo def da ko. dama ko déclaré waaw comme kii moo nekkoon sunu président ma foto ko jox ko ko envoyé ko ko mun ma fotal buukul bi tam raxasal buukul bi nga yónnee ma ko ma raxas buukul bi yónnee ko ko mun dina jaar fi mu war a ba ñëw ci yéen fekk enserré woon nañu xar yi. yàggul de xam naa ci ay six mois yo la ndaga mat ko si nawet bi la woon daal. jàpp na tamit parce que biñ koy wax nag. assuré woon naa daal waaye maa ngi ciy soog am mm, lu ba leer tey jii dama foogoon ne dañ koy wax noonu mais duñ ko topp vraiment ñoo ngi sant ndax suñu maire tam baax la moom dafa bëgg développement jàppale jigéen ba mu déggee projet bi dafa daal dugal xaalisam woo ñu boole nu ci te bu ko neexoon loolu du ko ci waa dina du soobee ñoo ngi ciy liggéey ndax ñun bi ñu jëlee si xar la ñu amoon ñu jox kenn ku nekk ñaari moom moo daal ñaari moo daal mu des kaat kaat yi ña ngay xar yooyu ña ngay développé incha allah ñi ñu ko tëralee mooy bu ñu amee doom bu dee jigéen a dañuy lotori jox kenn ko bokk si mbootaay bi bu dee góor la tam ñu jaay ko dugal ko si biir mbootaay bi bu fekkee da amaat xar tam muy góor amal na la njariñ ndax bu tabaski jotee doo jëndi wala sa borom kër bu amul nga jox ko mu tabaski wala yow nga jël tabaski wala nga jaay jariñoo sa njaboot xam nga loolu moom lu baax la waaw ñaan yàlla daal li ñuy joxaat mu def ci sunu wërsëg def ci vraiment mom mu ñu leen fay parce que projet bu doxé ni mom man ma ngi koy soog a gis ma ngi tuddu Fatma Ndjay jogé commune bu Tayba Ndjay ah ñëwoon nak fi tay ci remisu euh ah, ki bi sec bi and ak sama samay ah, groupement ñi bénéficier won xat a ah, ngir ñu assurance on wax deug yàlla ñu ci commencé di yëngu bi nga xamé ni jot nañu ci projet imam bi ndax bi projet bi bim taxawé bu indi ñu xar ñi dañoo xam ne am ne da ngeen ko wara a assuré bi ñu waxee loolu rek suñu maire dafa daal yakamti yàkkamti jël euh assurance bi daal di fayal ñepp mom Assane jaay fay fay xar yépp assuré lé ndax mom nekk na ko xamanteni wax dëgg yàlla macha ku bëgg développement la waye ku bëgg développement jigen ko taxawul jigen la ko am yermandé ci jigen la. ndaxte projet bu mel nii ku ku ko dégg nga dem bokk si wersi say jigéen dikk woo leen dajale leen ñu toog waxtaan ah tànn seen seeni groupement yi am na ñoom la ci seen saas nekk ñu gañee ñu encadré leen ñu dem jëndi suñuy xar forme suñu groupe de sang ñu dem jëndi xar dikk séddale kenn ku nekk yóbbu sam xar ah ñuy yar bi yàlla dogalee li ko neex parce dee moom yàlla moo ko moo ko moo ci lépp lu mu bind bu dee ci groupement bi macha allah moom wax dëgg yàlla ñun dañuy dëkk bi dëkk bu mag la dafa nekk euh, cinq quinze groupement mais quinze groupement yooyu dañ leen dañu dañu dañoo dajaloo si benn groupement ñu koy wax ànd defar ba ci biir ànd defar Taïba nag ñu génnee si beneen groupement muy ànd baax yaay ñoom ñu yàlla ate ñoom ñu gañe ah xare yi ñun li ñu gañoon li ñu jënd lépp ci commune bi nekkoon na trente xar mm. ñu séddale ko groupement bu nekk am six xar mm. waaw léegi dañ groupement bu nekk nag ñi ci manqué le ñoo teew si fii tey jël si seen